parce que moom mooy le parent des tortionnaires moom mooy le parrain des assassins moom mooy le parrain de ñi nga xam ne ñoo faat boom nit yi moom doomam sax ñu ngi koy tudd ci recruter ay nervi en réalité loi bi du pour Ousmane Sonko du pour Pastef du pour askan wi du pour détenus politiques yi en réalité c'est pour le président Macky Sall ay mbokkam ay xaritam ak góor ak jigéen ñi nga xam ne moom la doon jëfandikoo pour torturer askanu Sénégal pour rey askanu Sénégal c'est ça la vérité parce que waru leen wax askanu Sénégal bi ne pour dab li mu bugg a amnistie rek moo fi nekk am na leneen bu jaarul feneen jaar ci amnistie boppam la bugg a boppam la bëgg a protéger doomam bi doon recruter nervi mbokkam yi doon recruter ay nervi di jënd ay ngànnaay quarante cinq milliards d'armes ñoom ngeen bugg en réalité